ñu taxaw def seetlu bu problème amé bu ñu taxaw di wax ci conséquences su problème bi nañ dem ca cosaanu problème bi cosaanu problème bi ñu dund tay ji tàmbali na ay ati at sa gannaaw jamono bi nga xamee ni ki di Macky Sall di président de la République jógte ne ni lépp luy droit ak ak yelleefu képp koo xamee ne ànduloo ko mom dina la faagaagal dina la sank dina la gàllankoor suñu ay nawle yu bare ci biir classe politique bi am nañ fi ay procès yu jéggi dayoo ci ñawteef seen ay droit violé nañ ko activité politique ci réew mi kenn xamatul nu muy demee gis ngeen parrainage ba na mu demee woon ak situation ya ci topp ya ci topp ya ci topp ba tey jii mu xëy suba singali Ousmane Sonko donc il faut que sénégalais yi xam pour construire état de droit dafa di cëru c'est vrai ni jiite ci réew mi ak institution yi mais dafa di cëru en particulier citoyens yi nga xamee bu jàmm amee ñoom ñoo koy profito bu fitna amee ñoom ñoo ci dee te loolu dafa war a doon ku nekk suñu mu taxaw seetlu si est-ce que rek Sénégal tey jii fi ñu toll nii ay acteurs politiques war nañoo mën a sàggan surtout muy président de la République ba nga xamee ni jafe-jafe mu am digganteem ak kenn ci biir politique yi foog mu dugal gendarmerie foog mu dugal police foog mu dugal tribunal foog mu ñoñantal la foog mu yóbbu la ci ay mbir yoo xamee ni dëppoowul ak yoon te teguwul fenn

jàppoon nañu fa ñu jaarale woon ma Khalifa Sall jaarale fa Karim Wade tey jii foofu lañ ko war a jaarale Ousmane Sonko ñu jàpp ni démb Sénégalais yi réagir ñu woon xëy na tey jii bu ñu fa jaaraatee dinañ am les mêmes résultats réew boo yi yéenee jàmmoon doo leen yóbbu ci fitna te nañu nañu gaawantu ñun Sénégalais yi ñu moytu bu baax a baax wax yu bare yi ñuy wax naan na yo na dem wuy ji Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko laa ab citoyen bu toogee ci biir këram ñu wut complot bu day na innema yor ko ci diggu ndoddam wëlbatikuwaat jaarale ko assemblée nationale te Sénégal yëpp seede nañu en tant que député ni fañ ko jaarale ci assemblée nationale yëpp comme démb fa ñu la woon Khalifa Sall dara dëppwu ci yoon man damaa jaaxle yi lool am naqar lool ci réew moo xamee ni ay citoyens yu honorable dañ leen di fekk seen biir kër jaay leen doole violer les lois violer surtout la constitution le règlement intérieur violer le code de procédure pénale jaay leen doole ci do xamanté wul fenn ba pare ñu né réew moom réewum démocratie la ba pare ñu né réew mom ñu fay saxal jamm, man de réew mom gëwuma ni ñu ngi liggéey jàmm fitna nak lañu liggéey ci réew mi te suñu moytuwulee dinañu am fitna ba mu doy sëkk te le malheur dans ces situations là moy kër petax day lakk lakkaale kër Il y a des citoyens honorables yo xamee ne liggéey ak jaamu yalla la ñu xale méritent réew te ñooñu mérité nañu du respect respect bi ñuy amal ci citoyen bu nekk moy dëgg-dëgg ak ak fu citoyen bi ñukay koy président de la république amul droit utiliser constitution au Sénégal amul droit utiliser wu assemblée nationale amul droit utiliser procureur ministre de la justice ak juge d'instruction amul droit fekk que bu tuuti bo xamee ni mi ngi soogay lukkiku ci adina ñu duggal ci situation yo juste pour am ben opposant imaginez rek le nombre de posants qu'il y a dans le pays bu paree Ousmane Sonko après ci kan la jëm xeyna na Bougane moomu taxaw fofu yoré micro bi di di yooxu sànq ba légui xeyna mo ci top wala bu ëllëgee Cheikh Bamba Dièye wala mustapha Guirassy wala Aïda Mbodj wala et cetera wala wala wala est-ce que ñun ñi dañu nekk suñu réew bu ñu bok ñun ñëpp parce que question yoy il faut que ñu koy delloo si yéen ngeen koy poser askan wi di ko poser nguur gi

nga ñaareel kat waxul bu ñettee bu jógee di yuuxu dootul moom mooy problème bi problème bi mooy ki tàmm jël ñaawteef di ko teg ca kaw askan wi te kooku foog ngeen ñeme joxoñ ko am réew la fay yàqu bu tant ñemewuñu ko tudd duñ ci génne li yàq Sénégal mooy wëlbatiku sukkandiku ci doole nguur gi di ñoñantal nit ñi di fayantoo ak di gàllankoor te nag yaa allo. allo waaw waaw wéyalal. te nag. toll nañu ci point de non retour point de non retour moo di réew yëpp ci àddina ñu ngi xalloo di développer seen bopp ñu ngi toppatoo seen éducation ñu ngi toppatoo seen sécurité doom ñu ngi wut emploi yu bare yu ñu jox ak seen i seen i njaboot ñu ngi jël jàmm gu am solo tekk ndax bu jàmm amulee conscience amul développement du mën a am jamono yooyu nag temps gii ñu am ñu ngi koy confisqué boolekaak ay yaraki lacrymogène di ñu bund xataal subaak ngoon

on s'est battu fii la ñu xeex ànd ak journalistes yi ànd ak homme politique yi ànd ak société civile bi ñëpp jóg moom Macky Sall mu doon kenn ci biir googu bu fekkee yàlla dafa ko dimbali ba mu jëriñoo xeex boobu doon xeex dëgg dëgg dëgg dëgg war naa gore aslëf gore aslëf mooy que nit la fañ jaarale woon ba jox ab teraanga na wëlbati ko xale yi ak ndaw yi góor yi jigéen yi reyante woon ak ñi nga xam ne seen bakkan des na ci mu njukkal leen ci ni

Euh, merci honorable